doon ko euh, jël mbalaan mi nga xam ni moom la ñu defee kaaba gi mu defe ko ko ni woon daf koy barkeelu jox ko sëriñ bi mu nekk souvenir am bi nga ñëwee nag sëriñ bi ni kii daal souveniru woon ci moom waaye yow la koy jox ndax gis na la bi ngay jàng alquran mu bég lool nee na lenn rek moo ko ci jaaxal nee na waaw nee rek moo ko ci jaaxal daal fay gi moo ko ci ak suñ ji naa ba yaa ngi dégg ak ñaayeg waaw baax na ngor eh, lé lé léegi itam dafa waxoon ni bii itam mi ngi jóge ci Makka moom itam ci rëw du yonent bi salaay salaam lañ ko joxe woon siyaade bii mu ni bii itam ñu ngi la koy jox comme amin nee na kii itam xuut la bay naafi la bay weer di dóor yi ngay dóor nee na nga tuuroo ko bu ko ci fàtte ci ñaan maamam Seydi Hadj Malick moo ko bind muy diwaan bi nga xam ne lépp lu Alaaji wax ci li ñu mën a génne mi ngi fii li ñu génnewul moo ëpp waaye yii lañu jot a génne mu ni kii mu jox la ko comme kado koo demee nga liir ko xool li sama maam Seydi Hadj Malick def nga ñëw nag ci bés bu leer muy altine ku ne xam naa altine ñu oh. ci xew yëpp te hasard amul. xamoo ko woon xamu ko woon xamuñu ko woon. kon ci altine jooju nga ñëw te tàllal yàgg ñi nga àndal ak ñi nga bàyyi gannaaw mu ñaanal la yàlla mission bi nga xam ne yàlla gàll na la ko yàlla defal la ci lu ëpp sa yaakaar mbokk yi ñëpp tàllal.